tudd Pape Hervé Guèye man maay vice président association bi Yaaw si Yaakaar tey ñoo ñëw fii nii am euh, suñu benn journée fii si Albert Royer comme d'habitude ñu ko doon def samedi euh, ñu ngi nii ak xale yi di rafetlu tamit seen teewaay. salaamaaleykum man la Dieynaba Ndiaye en fait association bi commencé nañ suñu activité il y a cela un an on avait commencé dañu commencé woon par mois bu nekk dañuy jël benn samedi. ñu ñëw fii passer la journée avec les enfants def ay activités ludo-récréatives comme coloriage peinture lecture et tout. maa ngi tudd Pape Demba Ndiaye élève là à l'UCAO IMES pare naa sama licence avec en même temps mes camarades de classe c'est si vacances 2016 précisément septembre 2016 la suñu présidente bi Dieynaba Ndiaye

léegi ñun dañoo xool xam ne instant bii ni am na loo xam ne war nañ ko mën a def parce que nous on se bien macha allah ñu ngi sant yàlla léegi lu tax ñu mën a lu tax du ñu mën a ñëw fii nii partager loolu na ak xale yi ñoo xam ne amaana amuñu loolu suñu nekkee fii dañuy wéet loolu nañu seetlu parce que mës nañ fi ñëw ak euh, ñoom léegi dañuy wéet. te du ñu am kenn ku ñu foowal si xam na rek léegi ñu ñëw ba am benn moment boo xam ne mën nañ leen détendre loo retrouver seen sourire foo ree comme ça amaana sax loolu dina am benn aspect boo xam ne mën na wàññeeku si ñoom wàññeeku si wala mu am benn euh, yokkute bu mu leen jox seen santé daal comme ça traitement bi gën a jàll wala genre yooyu noonu. ñu leen di remercier si initiative bi parce que lu baax la. fekk ay xale yu feebar stressé wu seen maman yi stressé wu ngeen ñëw di leen détressé wu vraiment affaire bu baax la affaire bu baax la ñu leen di sent di leen gërëm di leen ñaanal ngeen yokku ci kanam li ngeen di séentu ngeen àgg fu ko raw da leen di vraiment da leen di kii daal day wàññi lu bëre ci ñoom parce que xam nga feebar nga enfermé wu benn place surtout xale nga xam ne dafa tàmm di génn di foo di jouer di gis ay moroomam jékki-jékki tëdd si benn place nii doo gis lu dul ay blouse blanche ñu di la foog ngay jooy à tout moment xam nga loolu dafay kii xale lii ngeen def nii day tax xale yi lu day kii si ñoom lu bëri day wàññi si ñoom lu bëri daal même maman yi sax même ñun sax parce que sa doom feebar nga tiim ko muy souffrir yow aussi dangay ngay boo gisee ku ñëw di la wàññi stress boobu vraiment nous sommes kontaan kontaan nañ trop parce que nga indi fi sa doom mu feebar ba yàlla def tey jii ngeen ñëw fii ngeen ngeen di def lii. vraiment c'est bon parce que léegi xale yëpp soxla nañ lii temps yëpp ñu ngi tëju ci biir hôpital yi fi enfermé wu foofu mënuñu génn mënuñu def dara mais tey jii bés bu rëy la ci ñoom parce que voilà ñoom am ñoo xamante ni gëj nañ dem école ñu ngi fii toog tey gisaat nañ seen crayon seen feuille blanche ñu ngi dessiné ñu ngi def seen comme moom lañ tàmm daal. association bi ñun ñëpp ay élèves lañu am na yeneen adhérents yi si nekk tamit. ay professionnels am na si mais ñun élèves yi ñoo ñu ñoo nekk si bureau yi. gis biñ si am mooy que ni association yaa ngi gën di bëri mais si association yi dimbale xale yi gis nañu ñi si ëpp du ñu ah man si li ma gis du ñu ay politiciens am na benn association boo xam ne Twitter la ko nit ñi gën a xamee muy couverture pour tous boo demee sur Twitter. boo defee tappee couverture pour tous di nga ko gis dañu organiser ay match yoo xam ne da ngay cotiser après la somme dañ koy dajale dem jox ko xale yi. gis-gis bi dañ koy rafetlu déjà parce que du ñu du nit ñoo xam ne dañoo am lu ñu fayeeku donc ñoom dañuy dañuy dajale rek pour jàppale ñi nga xam ne ñu ñoo leen tane. alors on a choisi de changer un peu les choses d'amener de nouvelles activités euh, def ay maquillage artistique. peinture coloriage on a même amené des ballons pour les enfants et waaw association nag bi ma xam bi ma xam boo xam ne leen na ma ne politique laxasu na si mooy servir le Sénégal parce que première dame moo ko moo ko moo ko formé donc c'est sûr que politique dina si nekk parce que c'est la première dame sinon am na yeneen association yoo xam ne dañoo génn mais ils sont plus dans le camp de l'opposition comme yu mel ni Save Dakar Save Dakar. Mandione Mandione Laye Mandione Laye moo ko moom loolu benn association la bu mu def pour soññu nit ñi si nit ñuy defaree suñu dëkkuwaay mu gën a rafet donc association yooyu tamit politique nekk na si. c'est très important parce que dañuy bëggal xale yi et loo pour jox sourire xale yi ni ñu leen gisee ci suba si lu rafet la la ñu ngi leen di sant di leen gërëm vraiment kontaan nañ ci lépp luy bëggal xale rek. Euh, loolu yàlla moo leen koy fay waaw ñun nag kontaan nañ ci xaw ma nag euh, association bi nu mu tudd dama tombeek rek voilà sama xale baa ngi fii di bind te mel ni kuy jàng di yokk xeli xale yi di leen encourager vraiment loolu bëgg nañ ci trop. ñu ma xalaatoon dem les citoyens lambda d'abord parce que def nañ ko def nañ benn journée de collecte on était parti Dakar lañ demoon Dakar ville. biñ fa demee ñuy def collecte biñ biñ paree ci ngoon amoon nañ xaalis bu bu bëri mais ñiñ gën a soxla ñi nga xam ne ñoo ñu war a gën a dimbale homme politique yi bokk nañ si mais tamit ñi nga xam ne yàlla defal na leen wërsëg tamit bokk nañ si mais jafe-jafe bi mooy egg ci ñooñu comme par man Maris laa dëkk Serigne Mboup CCBM këram sooyu fa Aliou Ngouille Ndiaye mag ay doomam ñoo jàngandoo école këram soriwul sama kër mais jafe-jafe bi mooy nga egsi si ñoom parfois intermédiaires yi si boppam ñoom ñoo lay bloqué teg ne ànd ak ngay def alors ko demeewul noonu mais ñooñu lañ gën a soxla ñu jàppale ñu ñi nga xam ne yàlla defal na leen wërsëg ñu mun ko def ci xale yi. Omar Ba waaw waaw. ñu ngi bëggee daal ñu ngi fi fàtte nañ sax li leen fi indi xale moom loolu rek la bëgg waaw lii tamit ci remèdes yi mala euh, ci remèdes yi médicaments yi très important la bokk voilà parce que voilà divertissement lépp loo xamante ni dina jàppale xale bi lu baax la daal. satisfaction bi ma njëkk a am mooy que ne li ñuy defal xale yi si suñuy poos lay jóge à part journée de collecte yi ñuy def. hôpital bi benn jour mos nañoo woo monsieur Dieng assistant social Albert waaye mu wooñu suñ présidente la woo mu ne dafa am benn xale je pense que jigéen la woon bu soxla opération d'urgence mais ay waajuram mënuñ ko dimbali mënuñu fay ordonnance bi mënuñu fay frais de d'opération yi jour boobu école lañu ñu fekk IMES jour boobu je pense si diggante dix heures diggante dix heures ak trois heures la ñu rassemblé somme bu cent mille francs diggante dix heures ba quinze heures neen mille francs cent mille francs yi lañ ko amee ñun déjà ñi nekkoon si école bi ñun ñu bokk si association bi ñoo ñoo ñëkk a cotiser boole loon ak liñ dencoon si suñu kees boole ak yeneen étudiants yi fa nekkoon ñu dem expliqué leen li xew ñoom tamit ñu joxe seen ndimbal donc xale boobu opération ñu ñoo ko subventionné. moom mës nekk suñu objectif retrouver sourire u xale yi parce que dañuy yàgg si hôpital yi te personnel médical bi rek lañuy ñuy amal contact alors on a trouvé que ni loolu du faciliter seen guérison et dañ leen di apporter un peu d'humanité dans cet hôpital. dina am xale yoo xam ne di mën a déplacer wu nga ñëw te nga jaaxaarloo que euh, seen machine yu leen di branché mu ñëw déplacer wu alors que yow sa kër yaa ngi am ay xale yoo xam ne ils sont bien portants foo ree loolu tamit dañuy marqué trop. moo tax à la fin bu nañ ne xaw nañ miin situation bi mais tout le temps tout le temps da nga am yenn cas yoo xam ne da lay dépassé doo comprendre des fois ci sors des larmes des fois mooy loolu di nga am yenn problème yoo xam ne doo ko mën a gérer yow mi sa bopp. maa leen njëkk a remercier yéen d' abord yéen ñi ñëw defal ñu lii ab interview bii ngeen def day tax nit ñu gën ñu xam mais tamit maa ngi remercier tamit waa Albert Royer parce que tamit ñoom ñoo ñoom ñoo tax ñun ñu mën a dimbale. ñoom bu ñu tëjoon seen buntu ñun duñ mën a dimbale xale yi. képp koo xam ne peut-être bu ñu gisee li nañ ko xàmmee mas nañ ñëw si yow laaj la ndimbal nga joxe ko ñoo ngi la siy sant di la gërëm maa ngi si gërëm tamit ñi bokk ak man association bi ak sama waa école waa IMES directeur des études bi ak suñu responsable monsieur Louis Joseph Pierre Ndoye jàppale nañ ñu bu baax a baax a baax ñoo leen di jaajëfal bu baax.